Ismaïla Sow maa ngi lay nuyu. Euh, madame Awa maa ngi lay fay. alors ngay njiitu nag conseil national ou euh, maison gi ëmb éleveur yi nekk fii ci Sénégal euh, ci conseil de ministre nag ñu gis njiitu réew gi Bassirou Diomaye jaxa Faye jox na importance élevage waaye tamit rawatina lépp loo xam te ne jëm na ci wàllu boobu lii ban jàngat nga am ci considération googu lii nga xam ne jox na ko nag éleveurs yi. vraiment dama am mbégte bu rëy parce que démb ba ma dégloo communiqué conseil man dama am sentiment de satisfaction parce que aussi tamit euh, loolu dafa ñu soulager trop parce que boo demee ba président de la république communiqué ci ci conseil des ministres communiqué ci élevage ba pare taxaw ci commenté ko loolu dafa lay rassuré ci lu bari mais loolu dafay won éleveurs yi aujourd'hui tey ki ji ñu xam ne président de la république fàttaliku na leen bay na leen xel te aussi xam na secteur élevage naka la war a demee eh, loolu nag eh, li muy signifier mooy secteur élevage dafa bari tey ñoo xamante ni ñu ngi ci dund dégg nga dundal ci seen njaboot eh, nekk aussi tamit nit ñoo xamante ne ñi yaakaaruñu lu dul secteur bi loolu nag ci li nga xam ne wax na ko démb loolu moom moo ñuy dimbali parce que aussi euh, réew mu mel ne Sénégal nañu xam ne ñun ay réew sahélien lañu suñu taw bariwul bokkuñu ci ak réew européen yi réew européen yi seen aada ak seen cosaan ak seen dundin bokkul ak suñu bas dégg nga te ñun dañoo nekk nit ñoo xam ne ñu aussi war nañu organiser bu baax pour jàpp suñu dund ak suñu ëllëg ci suñu loxo te loolu nag ni ñu koy mën a defee mooy ko ñu dugal loxo ñëpp dégg nga su ko defee état buy décider mbaa muy waxtaan mu waxtaan ak éleveurs yi ndax aussi nag dañu xam ne élevage ak agriculture bokkul ak yeneen secteurs yi mooy éducation santé et cetera ñooñu ay fonctionnaire lañu ñii nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéey bi ay nit lañ ñoo xam ni ñoom ñoo seen moom seen yëf dégg nga kenn fayu leen salaire te état bu leen di jàppale aussi di leen a war a jiital jàppale leen gunge leen aide leen parce que bu état jiitoo éleveurs yi ak béykat yi toppa ci ëllëg ak jàmm bu échec amee kon bu boobaa responsabilité état dafay engagé kon nit ak lu muy liggéey da nga dañu koy da nga koy gunge mais aussi nga euh, responsabilité ci ku ci responsabilité am mooy tax bu ëllëgee bu problème amee bu ñu situer les responsabilités état du ci euh, du ko indil ay jafe-jafe daal. Mhm. alors mu mel ni daal am na solo su rëy rawatina nag ci souveraineté alimentaire. waaw xam nga bu ñu nee souveraineté alimentaire moom élevage da ca am taxawaay bu bari te loolu war nañu xam ne nag tey bu ñu nee souveraineté alimentaire fokk élevage ñëw parce que mënoo tudd souveraineté alimentaire te doo tudd meew doo tudd yàpp doo tudd aussi xaalis bi nga xam ne dangay yar jaay wala nga produire jaay da yu demee noonu te xaalis boobu boo ko amee ci ngay faju ci ngay solu ci ngay dundal sa kër ci ngay dundal sa njaboot donc kon bu ñu doonee souveraineté alimentaire élevage tamit dafa am waar bu rëy bu mu ciy béy kon mun nañu wax ne même souveraineté alimentaire boo pour ñun yemul rek ci nit ñi loolu mun nañu ko am ci ci nit ñi mais euh, euh, fe war nañu fekk tamit ba nga xamante ne jur gi aussi dana am souveraineté alimentaire parce que souveraineté alimentaire jur gi mooy fekkee nga am aliment concentré bi ñu euh, élevage yi mun cee jot mais la nga xam ne yàlla moo ko fi saxal muy ay ñax dégg nga élevage yi sàmm ko ñu mun koo mun cee jot mais garab yi nga xam ne aussi jur da koy lekk yooyu aussi ñu mun cee euh, fee sax ñu sàmm leen kon loolu moom mooy souveraineté alimentaire ci wàllu nit ak euh, doomu aadama ak jur. mu mel ni nag jot na leen félicité bu baax a baax ci ni Sénégal moomee boppam ci wàllum xar waaye nga foog ni doy na. waaw léegi man foofu li may wax mooy wax dëgg yàlla damay rafet les temps tànk moom mu wax ne communique euh, communique communique bi ñu communication bi ñu def jëm ci kéréel waat mais li may koy eh, wax man na xam ne moom dafa bëgg moom boppam ci côté yëpp kon secteur bi nga xam ne moom mooy secteur élevage dafa am moment yoo xam ni dañu koy soxla kon na fekke ba nga xamante ne nañu jéem a moom suñu bopp parce que compter ci yeneen réew yi wóorul gis nga quatre-vingt-neuf Sénégal ak Mauritanie jafe-jafe yi ñu amoon gis nga problème yi ma di am Burkina kon ñooñu moo tax bokkuñ te kenn bu amee jafe-jafe di ngay am jafe-jafe wala nga jaaxle kon man li may wax mooy nañu jéem a taxaw ñu liggéey sottante ay xalaat ci naka la mën a def ba nga xamante ne dana moom a moom boppam ci yëpp mais secteur bi aussi nga xam ne dañuy def planification parce que boo jikkee néew mun nga am problème ci ya ci des kon xëy na tey am nañu meew ci suñuy réew yoo xam ni day dugg ci bool ak la ñu am kon nañu fekke ba événement yi nga xam ne dañu koy am te bu ñu ko amulee jur day jur ay jafe-jafe yooyu moom nañu fekke ñu assuré ko su ko defee ñu jéem a yuutu nag leneen la ci des. li jëm tamit ci wàllum aliment de bétail jot na cee wax njëg li euh, ci wàllu boobu. waaw euh, wàllu aliment de bétail mooy li wax sànq rek mooy autosuffisance ci wàllu lekk doomu aadama ak lekk jur loolu li fi yàlla saxal muy ñax mi ak garab yi fi nekk aliment concentré bi ak la nga mën a béyal sa bopp yooyu ngay boole nga war a mën a assurer sa autosuffisance ci wàllu lekk jur gi waaw loolu rek la amul leneen. alors li jëm ci tamit ci stratégie gi nga xamante ne woote na ko euh, ngir euh, ñu xeex lépp lu jëm ci wàllum euh, feu de brousse loolu ban jàngat nga ci am. waaw loolu tamit mooy li ma lay wax rek aar li nga xamante ne moom la ñu am muy ci wàllu lekk loolu bu ñu ko defee dañuy aar xam ne moom mooy lekk jur gi xanaa la ciy topp mooy wàllu wérgu yaramu jur loolu tamit am ñu ay vétérinaire yu xarañ fi mu nekk nii aussi ñu ngi lëkkaloo ak FAO. kooku aussi di jàppale nguur gi ci wàllu santé animale loolu nag lu am solo la parce que bu ñu fàttit ne réew yi dafa am demalante ak dëkkalante surtout tabaski bi ay yeneen jur ñoo fi jóge dafi ñëw mun nañu fi indaale ay maladie loolu euh, lu ñu war a mën bàyyi xel kon loolu tamit rafetlu nañu taxawaay booba nga xam ni technicien vétérinaire yaa ngi taxaw partenaires yi ñu mel ne FAO ak FRAPSD ñooñu aussi ñu ngi ci contribuer bu baax kon wax na yaakaar nañ foofu la ca war a mën a des mooy jàppale les organisations pour le renforcement de capacités dégg nga les des éleveurs ñu xam nan la ñuy jëlee seen destin en main parce que nit ñi aussi tamit war nañu leen jàpp pour ñu war a mën a am seen autonome mais aussi ñuy wàññi compte bi trop ci état parce que état du éleveurs yi rek la yore du béykat yi rek la yore am na ñu xam ni leneen lu fa dee état moo ko rey mooy ci wàllu santé euh, euh, santé humaine ci wàllu éducation dégg nga ci wàllu armée force sécurité ak défense ak yeneen kon ñooñu aussi war nañu xaw a mën a feexal état pour que mu mun foofu dugal loxoom Mm-hmm. te loolu nag état ni mu koy mën a defee mooy wax ci procès yi nga xam ne ñu ngi fi. nañu accompagner les organisations. Mm-hmm. pour le renforcement des capacités et autonomie. mu nekk lu am solo waaye tamit li jëm ci wàllum vol de bétail nekk na loo xam te ne yàgg na leen sonal euh, te loolu yi njiitu réew gi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na faw ñu taxaw ci. wax nga dëgg euh, madame Awa parce que vol de bétail aussi boo seetee li muy yàq par jour par par semaine par mois par at loolu aussi kenn mënul xayma nu mu toll te loolu aussi ñu ngi ci gën a tàllal loxo kenn ma tudd ak force sécurité et de défense ak état bi parce que loolu aussi jafe-jafe la nag rek lekk parce que ñooñu aussi ñi nga xam ne dañuy yàq di sàcc ñooñu aussi ay nit ñu xarañ lañu te ñu am jumtukaay xam nu ñuy taxawee ba nga xamante ne pour def leen paas aussi noonu laaj na taxawaay bu dëgër. alors euh, fi mu toll nii leen ngeen gën a soxla ngir seen liggéey mën a jaar yoon. li ñu soxla mooy accompagnement de de l' accompagnement mooy état prêter ñu attention dëkk ñu ñu mën a am coordination ak organisation bu dëgër mais projet yi nga xam ne aussi ñëw nañu di financer ci biir secteur yi yooyu aussi. ñu génne ci ay rubrique yoo xam ni dafay dem ci organisation éleveurs yi parce que bul fàtte ne nag xaalis la bu leen yeneen réew lebal te loolu aussi suñu contribuable lañu leen di fayee kon état éleveurs yi aussi dañoo bokk ci ñuy fay kon ñooñu aussi suñu walla war na fee génn pour que ñu war a mun a organiser wu taxaw moom suñu bopp nga xam ne ëllëg jàmm bu ñu ne parc à vaccination bu ñu ci soxlaa fukk éleveurs yëpp danañu ci mën a defar juróom-ñaar ci wàllu santé animal bu ci état waree dugal téeméer nga xam ne juróom-ñaar fukk yi éleveurs yi ñu ko mën a for nga xam ne éleveurs yi danañu mën a téye seen boppa ci lu bari ba xam ne foofu dana woyofal euh, état bi ba xam ne da koy contribuer ci wàllu secteur bi pour mu mm-hmm. mun ko dugal feneen. Ismaïla Sow jërëjëf may fàttali rek ne yow njiitu conseil national u maison bi ëmb nag éleveur yi nekk fii ci Sénégal ñu ngi lay jëfal bu baax a baax. Euh, madame Awa nag maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm rajo Rewmi FM. Mm-hmm. parce que gis nañu ne wax dëgg yàlla moom dafay lépp xam ne lii événement bu am la te mu jëm ci Sénégal yi ak secteur yi da ciy taxaw taxawaay bu rafet. te loolu nag ma leen di féliciter au nom de tous les éleveurs du Sénégal di leen ñaanal yàlla aussi yàlla na yàlla yokk seen kattal may leen wér bu baax. amiin koom-koom bi ngeen mën a continuer di def seen liggéey ni ngeen bëggee. jërëjëf. merci beaucoup. jërëjëf. merci beaucoup.